ci ci Afrique xam nga neex na euh, dëkk nga am doole nga xam ne lii mu ngi andi ay musiba <laughs> pandémie Covid 19 dafa nekkoon loo xam ne dafa wër àdduna wërngal këpp. Mhm. te gis nañ la mu rey ca réewu taax yi. Mhm. kon ñoom commencé nañu xam ne kon mbir mi kat <laughs> xëy na dañu yaakaaroon ne Afrique rek lay yem. wante ñu nit ñu ngi ciy jot lu baree bari. foofu la gën gis nañ ñi muy rey ci ay nit chaque année. Euh, pollution boobu rawatina ci réewu taax yi aussi. Mm-hmm. donc Sénégal aussi am na ci. xam nga euh, politique boobu ngay wax euh, c'est très important moom la ñuy tuddee contribution nationale déterminée maanaam CDN. Mm-hmm. dëkk bu nekk da nga war a engagé wu nga wax ne man. dinaa engagé wu pour réduire samay gaz à effet de serre mm-hmm. parce que boo déggee gaz à effet de serre yooyu li koy indi yépp mooy gaz yi nga xam te ni moo jógee ko ci wàllu énergie fossile donc énergie fossile yooyu boo koy wàññi ci sa contribution nationale déterminée yow wane na ko wane nga ko ne yow yaa ngi respecté xëy na engagement yi nga xamante ni moom nga jëloon réewu Afrique yi nag la majeure partie du temps franchement ñoo ngi def ay efforts rawatina Sénégal mhm. parce que keroog boo dégloo président de la République euh, ca assemblée générale des Nations Unies mhm. dafa jël lu toll ci trois minutes maanaam dix paragraphes mhm. jagleel ko lépp lu jëm ci wàllu justice climatique kon nga xam ne soxal ñoom am nañu prise de conscience. Mm-hmm. te commencé la leen soxal. boo gisee tey ñu daal di créer lu mel ni ay BRT ñu créer ñu créer lu mel ni ay TER ñu créer li nga xamante ni mooy central solaire yi nga xamante ni moom la ñu def pour def mix énergétique loolu yépp ci wàllu CDN yooyu la bokk maanaam dañu bëgg woon réewu taax yi ñun kat engagement yi ñu jëloon ñu ngi ciy jéem a def ay effort wante boo gisee effort yooyu mënul fës. mënuñu ci am ay yenn résultats yi ñu soxla c'est parce que tant que ñële ñoo xamante ni ñoo nekk ci yeneen réew yi arrêté ñu ñun on sera toujours impacté. mais quoi. Sénégal moom. Mhm. macha allah ci côté boobu ñu ngi ciy def ay effort mhm. motul gaa. Mhm. loolu moo tax suñu euh, marche bi objectif bi mooy. ñu daal di demander suñu gouvernants yi fii au Sénégal particulièrement ak partout en Afrique ñu daal di gën a yéegal niveau bi maanaam ñu rehausser seeni ambition climatique gën a def ay effort ci mbir moomu mbir moomu bokk na ci surtout ci secteur bi nga xamante ni man moom laa gën a miin muy secteur euh, euh, mbay mi maanaam la paysannerie gis nga tey boo demee ci àll bi bu ñuy xool bu ko xaymaa lu toll ci quatre-vingt pour cent des femmes ci wàllu euh, euh, loolu la ñuy dund mhm. ci wàllu mbay mi la ñuy dund waaw léegi bu fekkente ne érosion côtière ñëw na parce que loolu yëpp ay euh, ay ay ay ay kii la ay effet changement climatique la érosion côtière bu ñëwee ci ci ci ci ab gox di nga gis ne géej gi bu avancé suuf si dina saf xorom maanaam salinisation des sols naka la ñuy def pour defaraat suuf soosu loolu benn pàcc la te metti na trop ci ñi nga xam te ne ñooy béy xam nga booy béy ci suuf su saf xorom. Mhm. ah yaakaaruma ne ngay béy moo ngi noonu. Hmm? inondation yi ñuy wax ma xam ne day ñëw en cascade. Mhm. bu ñëwee gis nga dakaar ni mu mel ak assainissement bi. Mhm. gis nga yeneen dëkk Afrique yi gis nga li xew si New York. Euh, ci euh, euh, année ba la passé ci ci Noël bi gis nga li xew ci yeneen dëkk yi yëpp inondation yu mag yi am ba ay nit di ci faatu di ci dee gis nga li xew keroog ca Libye ah nit ñu bari dee ci gis nga li xew keroog ca Maroc nit ñu bari dee ci kon loolu yëpp ay firnde la yoo xamante ni euh, alerte la yu ñu expert GIEC yi joxoon te ju ngi koy dund actuellement te Afrique mu ngi koy subir bu baax a baax a baax a baax loolu moo tax justice climatique boobu dafa bëgg ñoom engagement yi ñu jëloon ñu respecté ko non seulement pour réduire seen émission gaz à effet de serre mhm. mais également euh, ndàmpaay ya nga xamante ni moom la ñu waroon jël jagleel ko dëkk Afrique yi mel ni Sénégal pour ñu mën a mettre en place justement yenn infrastructure yoo xamante ni dafay euh, dem dans le sens d'une société décarbonée. Mhm. ñu daal di koy respecter. parce que cent milliards yi ñu waxoon ba tey jii depuis 2015 ba tey jii respecté wuñ ko. Mhm. nekk na loo xamante ni kon ab tooñ la. te tooñ boobu nag ñun moom la ñuy tuddee justice climatique di ko réclamer tey à travers la voix des femmes parce que les femmes du monde rural les femmes urbaines ñëpp ñu ngi koy subir xam nga bu yàgg ba ci deuxième édition bi dañ ne woon les femmes du monde rural ñoom ñoo ñëwoon ñu marché mais ren bu ñu xoolee marché bi am na ay association yu bari yu bokk ci biir Ndakaar yoo xam te ne dañuy ñëw participer parce que dañ cee bokk ñu ngi koy yëg tey yow da ngay dem marché Sarr boo demee marché booy ndugg ak ba nga doon dugg bu yàgg ba boo yóbboo junni xam nga li ngay li ngay li nga fay am du bari de ah donc ñoom ñëpp ñu ngi koy subir loolu moo tax ñuy def marche bi di gën a ñaax aussi suñu euh, gouvernants yi ñu rëwasi seen ambition climatique parce que dafa jot tey àdduna bi yëpp ñu rëwasi suñuy ambition climatique